man ca ngoon ba léegi maa ngi toog xam nga samedi damay enregistré sama vidéo dër ko le dimanche nag damay toog di dégluwaat vidéo ba di xool commentaire yi di dégluwaat affaire ya fan laa inspiré woon ko mais gars yi ay ponkal ngeen ko gars yi dañ ma inspiré ba tey mënuma ko muñ loolu xam ngeen collaborateurs yi doon am Sénégal xam nañ koy dër guddi gi ah nice gars yi fecc bu ñu yeewoo ci ngoon gi ñu ne dañuy dañuy nuñ koy woowee sax <laughs> dañuy ñiit quoi xam nga pour pour pour jeexal affaire donc organiser wat affaire bu ndaw tek ko moy vidéo bi mo len dorul quoi mais nak daf len attention hein, parce que gaaya man 5 ans waaw 5 ans xolal sama wolis la yor de waaw mu ngi ni waaw kon nak hein ah waaw ma ngi waaw Youssou Ndour hein daf len attention de hein waaw Macky Sall na ngeen def attention man ki hein palais ba la jógee mo ngi di way gars danaa leen créer yéen ñëpp <laughs> waaw moo ngi noonu de way gis nga moo ngi nii ah lan lañ bind fii hmm? poste italien ah poste la jógee ah lan lañ bind fii ah xaadim géey lañ bind fii ah gis ngeen ko de waaw moo ngi noonu waaw gis nga lii ah waaw hmm? gis ngeen de ah lan lañ bind fii kaaf ah. gis ngeen affaire num demé waaw kon nak na ngeen def attention pare samay wëlis la yor waaw na len créer lien <laughs> wëlis aset yi gis nga agenda bi ah lépp ci waaw man sama euro layor yor de waaw Sénégal xam nga lu len di fay hein ah? <laughs> de CFA lañ di man euro layor, yor waaw dañuy tok di mu jox information yi Assane moo jox information yi waaw nim koy joxe maître Assane ah, <laughs> maître El Hadj El Hadj ah, noonu la koy joxe waaw noonu lay ma information di accès ci man xam ngeen information Assane nan la wóore ah, gis ngeen ah ne naa leen fi démb ah ki maa leen ko woon un million d'euros laa fi gagné waaw weddi leen ko weddi leen ko waaw <laughs> ah. le Sénégal nag yéen yéen laay moytu quoi le Sénégal la vérité ah yéen yéenay kàcc loo asat ëllëg nag jóg leen samay mbir quoi moo gën wóor waaw mais gars ay ponkal ngeen quoi vraiment mais yéen est-ce que seetaan ngeen Assane Diouf les gars dama doon black nii di di di di di fo <laughs> amalo di fo laa doon def ci instant boobu pour wane document yooyu ay cinq ans ku neex nga toog ci vidéo di wane ay kayit yoo xam ne tekkiwul dara loo xam ne ñoom ña ngay wax ci Ku Klux yooyu mu ñëw di leen gëm la ay gouvernement Sénégal la ñuy wax quoi di waat nag gis nga waat ñu mënul wax naan barke sëñ billahi wallahi wa tallaahi quoi ci ay contrat ay kër ak ay contrat <laughs> ay boutique kayitu sagar boobu mu yore yow da jënd li ko waa ji wax dëgg la yow ji loué ab boutique rek ñu jox la ci kilo kilo ci kër ci contrat bi ah. ñu jox la kër siis yoo jënd la sëñ Tuubaa ah. ñu jox la sagaru kayit woo xam ne sa tur nekku ca turu ka la koy jaay nekku ci dara nekku ci Assane Diouf toog am fitu di leen gëmloo yooyu quoi Assane nee la boo defee quinze ans xaw ma seize ans yooyu nga def di kàcc ah gars yi boo déggee nañuy prononcer en anglais rek nañ koy dóore xam ne ñii ah def nañ fa trente ans ñoo la gën a xam mbir yi nan la demee waaw hmm? booy bii di wax ak yow ah, ah rakama ah, ah, agence <laughs> spéciale FBI la waaw yow lim la wax foofu ci vidéo bi xamoo passage bi déglu ngeen ko la dee ah ñoom dañu xam ne administration américain bi yëpp ay sénégalais ña nga fa waaw moo tax yaag Hélène lu ngeen di def nay leer Hélène négal ba am ay kayit négal ba yor green card boobu ah doog rëy lamiñ naan dangay ngay ci Sénégal ak Amérique boo moytul daañ la takk yow Hélène gay takk la nga dem yaag Assane da nga ko fekki Sénégal boo moytuwul sa divan boobu dégg ngeen waxu saytaaneem boobu muy wax bi Assane di ko téléphone dem leen ngeen hmm, déglu leen vidéo bii maa ngi leen koy ñaan ngir yàlla waaw le Sénégal de la vérité dégg leen saytaane bu jigéen boobu toog ba Assane di kàcc naan am na Sénégalais boo xam ne mi ngi wone ay kayit yoo waa yu kayit yu wér la yor yow yaa yorul dara ay rendez-vous ay hôpital ak kërëb kërëb ñëw di ko génne di ko gëmloo waaw eh, maître El Hadj Diouf taxaw naan waa ji nañ ko moytu ah li ma yor ah li ma dénk metre dénku la tus yow avocat nga yéen bu ngeen mënoon toroxal Macky Sall wala Youssou Ndour amoon document yooyu génne woon nga ko bu yàgg dara joxul ko wax naa la ko démb ah bien boo nga dàq waa ji sa kër sa xaalis nga ciy def di ji perte ñuy wax nga man Assane Gueye bi lay àndal yow déglu leen la maître euh, El Hadj Diouf laa lan lay wax foofu ci vidéo bi mais gars yi gars yi Sénégal ay ponkal ngeen booy continuer leen nii. ta waji bu nopi lol ngeen mo wax sank ah man sank ba tay ñoo ngi nii di ma deg ma ngi degante ak ñom fi commentaire bi am yu ma def ak ñom sax ngeen deg ko bu ngeen deme da ngeen ko lire sama suuf vidéo wala ngeen dem ci vidéo bi ñom ñu def ah ngeen lire commentaire yi ya may def jëm ji moko def di wax ak ñom waaw ñom xam nañ ni raayit fan lay joggé dañ koy génnee te buñ ko déggé dañ koy nang waaw la ma ko la ma leen wax wax ko le maître Elage Diouf la wax ko Thione sec je le répète bu dee Assane mi mooy seen ah témoin ah moom mooy seen euh, ku ngeen di ku ngeen di jël comme point de repère du ngeen dara te du ngeen mës doon tus bi boo ngeen jël seen arme de guerre yooyu ngeen teg ko ci suuf na mu leen ko waxee woon waaw kii du dara tekkiwul dara du ko mës tekki waaw du ko mës tekki bu doon ñeme na na génn xam naa mi ngi toog di xalaat na la saaga gaay mais Assane daal gis la geela yëgu koo ko de yéen Sénégal gisagu leen ko man xam naa ci dara gaa yi yéeg maaj boo xam ne bu génne moo gën a grave vidéo bii waaw Assane dangeen xëy rek <laughs> Sénégal googu mu nekk da ngeen bëgg xam fu Assane Diouf nekk du ngeen ko xam waaw Hélène nag yow buñ paree ci yow lañ jëm waaw yaag sa divan boobu sa fauteuil bi toog ah di kàcc ah, di témoin loo xam du dëgg xamoo ko tegoo ko fenn ah. yu ñàkk fayda yu ay mag Sall dem na fële France ñu koy teertu ci un euh, plateau boo comme ne si ay certaines sax teguñu ko fa mais yow yaa ngi intelligence nit ñi quoi Hein? même jardin bobo, hein? le premier ministre italien le premier ministre euh, allemand ñoom ñëpp accueillir nañu la fa bu fekkee ne da nga bëgg a direct, dara euh, daraja Macky Sall moi tax yooyu mooy koy accuser yow hein? prépare-toi prépare-toi man Macky Sall intéressé wu mais seen jeu yu sale yi ngeen def ah jël ay sagaru enveloppe ah di ñëw di wone ah naan lii ay moo ngi nii qu'est-ce kii xam ngeen lan moo nekk ci biir su ma génnee bu ma neexee takk ay kayit yu dul jeex la de way moo ngi nii fil nga yëpp te sama tur a ci nekk xam ngeen lan la signifié bu ma neexoon leen ay documents yu jógee ca ca palais ba la dama fay ñu jox ma ko mais damay kàcc bu mu waxee loolu su dee loolu laa jël ne Thione Seck ba mu taxaw ma ko xoolal document yaa ngi nii contre Youssou Ndour na nga daal li muy li muy contre wàll yi ci àdduna bi moo ngi nii damay kàcci bu dee Thione gëm na lool Thione du tus cuune la waaw Thione cuune nga boo gëmee lool cuune nga waaw yow nee nga xamoo woon sax waa ji mosoo koo xam bie boo nga jéem koo bañ a mës xam waaw maître El takkal ko li mu yor bu tekkee woon dara kër ndeyam jël lu tax demu fa toog mi ngi toog déglu leen ko foofu sa waay paase ko elem lan la koy wax xaw ma diw moo ma jox kër goo xam ne mat na cent millions ne ma dëkk fa bi ma jógee kër El Hadj fa laa nekk ça veut dire que bañ ko takkee indi ko El Hadj Diouf pour wut bës si moom moo ko accueillir këram mais munu ko fa tey waa jox ko kër gi mu dem fa Assane milliards yi mu wax moom la moom la ko sëñ Baara boole ca milliardaire ya dana ñëw ba Sénégal du am kër gu mu dëkk demul dëkk kër ndayam jéemu nekk ah xanaa dëkk ay kër euh, maître El Hadj Diouf dem di dëkk ay kër guñ ko jox yu jar cent millions moom xaalis bi mu doon wax alal ji ne moom la yor da nga ñëw ba Sénégal sa xarit wala sa mbokk di la jox sax kër goo dëkk yow da nga ne am nga loolu lépp Assane wàññil li nga nekk sa tànk yi ah gars yi jël leen ndox ngeen teg ko ci quoi tànk yi ni mu tàngee mu dafa ëpp quoi bu ngeen ko bàyyee Assane dana na jëpp takk ndax kàcc yu mag tànk yi moom kenn du ko laal fenn. gars ne nag gont leen lii affaire yi de gis business yi ak le Sénégal de la vérité là ah xam nga gis ngeen nga am da ngeen gis mu camoufler voix am c'est pas parce qu'il a peur de Hassan ragalul mami Hassan Assane waaw mais Hassan mingi, mais le gars là kan mon mon mën a quand mon kan moo mën xam secret yi kan moo ma mën a kàcciloo nii loolu tax mu camoufler ko parce que bu on gagne voix am comme ni may waxee mën na ko identifier xam kan la waa ji ci Assane dox ay preuve yo il n'est pas con dof dof di me def ay golo hein na ne def li il me connaît très bien te bu la ah, ma troxal troxal yu gëna graw yi Hélène gay Momo. waaw le gars Hélène ils ont des choses <laughs> na lu ñor ci yow de waaw bul de buñ ci Assane ci yow lañ jëm sa direct sa journaliste yooyu nga naan ah dañuy def ay enquête nañu def enquête ci yow def ko ci Assane Diouf ñu génnee ko pas ñuy toog nga leen di woo ay téléphone ñu lay utiliser Babacar xawma lan la ah waxoon na ci Assane day nangam nangam kenn mënu ko génnee day sóob Assane nañ takk nañ ko indi ko mu ñëw démentir ko indi yeneen nañ jeune journaliste Sénégal ya ah, def leen li gaa bi def ces deux gars ah, kii la ak frère boo xam ne FBI la nekk sénégalais comme yéen yéen yéen a waroon def bu fekk ay journalistes yi ngeen doon la ngeen doon ah yéen a waroon génne scoop bu mel nii lii bu ngeen ko amoon journaliste bu ñëwoon def job bi booy bi def ah ñëw génnee ko daañ ko tag fu ngand parce que ponkal lay doon mais yéen ay dangeen di copier di kole fii Assane kàcc ay kàcceem ngeen teg ko fii pour jaay seen ay journal dem leen ngeen kàcciloo Assane parce que document yi ngi fa ne leen jox lu ngeen mën a bind wala ngeen def li waji démentir point par point waaw la tax ñu accuser ko terroriste moko def fétalam yoy mu ak jassem yoy mu yor ne doon néwon na moy financer les la pour ñu ngeen gis ngeen ne nañ fa jass jom Assane di ci vidéo di ay c'est très facile quoi donc ay vrai ah, da ngeen def dem def ay recherche di jël lan mooy vérité ngeen génne ko jox ko sénégalais comme ñaari boy yi diñ def et sont pas des journalistes waaw donc war ngeen ruus yéen en tant que journaliste waaw wala bu ngeen amee jom sax au moins ngeen jël li nga xam ne si ah ku dul journaliste dem na ñëw def ay recherche am ñëw documenté wu ba ñëw proposé la ngeen jox ko au moins ah la nga xam ne si ah il faut donner à César ce qui appartient à César ngeen delloo ko ko sant ko gërëm ko ndax tey jii Sénégal ñu bari ñu ngi koy xam yéen ñooñu en tant que journaliste yéen ngi xam kan mooy Assane Diouf à travers ce gala waaw ak recherche ak vidéo mu leen woon amu leen lu ngeen ci teg lu dul nangu kii fenul kàcciwul demul di inventé man li ma leen doon wax sax dafa coïncider parce que man wax laa doon def mais moom def ci boole image yi. image yoo xam ne Assane mi ngeen di karkaral moo leen ko tegal won leen ko fii di leen ko gëmloo waa ji demonte ko benn par da ngeen di séré yéen tamit waaw bu Assane di traité yenn yi ngeen di ko tontu ni ngeen ko war a tontoo su kàccee ngeen génneen ko kàcc yi tegal ko Assane won na leen mu musu leen wax dara loo xam ne dëgg la mais yéen am na ñoo xam ñu ngi koy gëm ña ngi ànd ak moom waaw loolu lan moo ko waral parce que yéen yëngatuwu leen kenn ñemu ca tudd asan mais Assane mooy gan lu leen ragal ci moom def leen ni waa ji def la gaalaa wax naa ne il n'a pas peur de Assane ragalu ko mais dafa xam ne am na yeneen yu war a génn bu Assane noppiwu la kon ne saagaam yooyu ah, dana génne yeneen affaire yoo xam yéen mun leen ko découvrir ah, en tant que journaliste ah, sénégalais yi ñoom daañ leen ko won te kii maa leen ko promettre bu Assane soppikuwu la dina gën